la yàlla bëgg ñu jublu fa naan ko allahu akbar ilimaani màkka it benn rek la mënoo doon te defe naa ne boo nee màkki soreetoo foofu mais nag ba tey ba tey màkk ko a ngi fi màkk kuli bantaa ngi fi màkk guye ngi fi waaye makka julee kaay ko goddo tan ko goddo tan ko goddo tan ne heewani de ko goddo tan lamɗo amen lam lamɗo amen ko goddo alaaji imam Macky Sall dafa ñëw fekk yaayam ju baax ja lu neex bàyyil ko fi waaw boo xëyee ndékki lay jox suukar lay saf kooku bàyyiwu fi lu naqari te ku ne ndey ju liggéey amul sobo sa liggéeyu Macky ñoo nga ubbi hôpital bi mais am na boo fi fekk bu mag xam nga na mu tudd hôpital Massa Massa dana wér Massa nga fi fekk hôpitel Massa rek a fi ne woon ku am lu lay metti amoo lu ñu lay fajee lu muy Massa wala ñu jël sa góom bi duyu ci kurus ngay parce que gém euh, góom bi day gën a métti tey yaa fi jëlee hôpital Massa. investissement wu 20 milliards bi ak 150 lits yi di fàttali nit ñi ne leen bu ñu jógee fii dañuy dem Kédougou mu mel mu ubbi fa lu mel nii waaye lancé fa wala les travaux de PIDC. fa waxaale ci électrification rurale waaye bu leen fàttali tey jëmbat na fi.